Amin. internet nag TV Sénégal nuyu nañ leen di leen jaajëfal si ànd bi ngeen ànd ak suñuy programme di leen dalal si seen buzz de la semaine maanaam actualité bi nga xamante ne moo def buzz si semaine bi ñu tàmbale ko ak ki nga xamante ne moo di Imam Kanté Imam Kanté nag démb ku ne xamoon na ne mooy nekkoon invité euh, ki nga xamante ne mooy jour ngoone si émission boobu di am si 2STV muy confrontation Imam Kanté nag dañoo toog euh, téléspectateurs yi dañoo toog lu yàgg gisuñu émission bi ñu ñu ne annulé nañ li nga xamante ne moo di émission bi nag bu mu ñibbee def na benn sortie si li nga xamante ne moo di Facebook am di justifier li nga xamante ne moo tax mu quitté euh, studio 2STV yi moom nee na ay 21 20 heures 30 fekk na ko sur place moom te ki nga xamante ne Mbise Ngoné joxoon na ko rendez-vous 21 heures 10 au plus tard dina commencé li nga xamante ne moo di moo di euh, émission bi moom sax dafa jàppoon ne matériel bi ak disposition bi moo matalewul moo tax bu mu toogee ba ay 22h gisul dara gisul lu mu xam si la demee te li nga xamante ne moo di Bijou mi ko bi ko invité moom sax dafa ñëw en retard suñu fàttalikoo Imam Kanté ak Bijou Ngoné xaw nañu am ay ñagas-ñagas ay jamono si ginnaaw mooy jamono yi fi Waly solee li nga xamante ne moo di t boobu noonu Imam Kanté daal di génn ne Waly dafay dooleel li nga xamante ne moo di mbirum góor jigéen euh, Bijou ko Bijou Ngoné nag si la defee sotti daal di koy tontu Imam wax Bijou wax mu am ay ñagas-ñagas ba tax na mbokk téléspectateurs yi bu ñu gisee ni sax ki nga xamante ne Bijou Ngoné dafa invité ki nga xamante ne moo di Imam Kanté xaw nañ am njaaxle tuuti ñu jóge ci loolu nag ñu jàll si ki nga xamante ne moo di Kouthia Show Kouthia nag Kouthia mooy humoriste boobu noonu ay fan si ginnaaw dañoo gisoon ne dañoo toogoon ñi nga xamante ne dañuy am numéro di vue statut dañoo gisoon ci statut am ay euh, vidéo yoo xam ne dafa am signe pornographique moom nag euh, dafa génn daal di ne dañu moom defu ko dañoo piraté li nga xamante ne moo def compte Facebook am mi ngi euh, compte WhatsApp am mi ngi kii nga mi ngi dalal fansam yi tey wax waa Sénégal ñu moytu li nga xamante ne moo di réseaux sociaux ndax dafa sensible te moom sax nee na moom kilifa la yor na ñaari soxna kon moom du def li nga xamante ne mooy toog naan day seetaan ay film porno suñu jógee ci loolu nag ñu jàll ci ki nga xamante ne moo di Fatim O O moom après vingt ans de compagnonnage ak waa RFM moom dafa génn def benn sortie rek day quitté li nga xamante ne moo di groupe Futurs Médias daal di def année 2020 bi année de rétrospection maanaam toog réculer pour mieux sauter daal di jël temps wam daal di koy consacré si li nga xamante ne moo di famille ni loolu la wax si dernière émission wam boobu mooy Coffee Time ah moom euh, Fatim woon nag nee na moom gitewul benn yoon RFM dina revenir à ah, dina dellu siwaat si nga xam ne moo di RFM mais munul wax nag kañ kañ lay doon suñu jógee ci loolu ñu jaaxal ñu jeexalee ak euh, ki nga xamante ne moo di Miss Sénégal bi moom nee na moom mariéegul amagul jëkkër donc moom mu ngi ubbil bunt yi képp ki nga xamante ne da ngay fëgg suñu fàttalikoo moom euh, Miss bi moom mu ngi jógee région de Fatick am 21 ans moom day Fatou Dione élève en classe de terminale moom moo wutu nag ki nga xamante moo di Alberta Diatta mi moo nga xam te ne moom moo gagné woon euh, concours année dernière concours national de beauté bi mbokk yi li leen leen andiloon seen buzz de la semaine di leen jox rendez-vous samedi prochain ak yeneen i xibaar d'ici la portez-vous bien.